Assalamualaikum warahmatullah. ma maa leen nuyu di leen ziar wa man la usaynu ñu gën ma xamé ci Karbala Couture wa ma ngi ñaanal khalifa euh, bi seigne muntaha yàlla na fi yag lool te wér ma ngi and euh, ak daayira Mafatihul jinan ñun wa kasse ñu gën ko xamé ci Karbala Couture ño and ak yeen ci

ما ينبى كتابي yi kon ñu ngi leen di nuyuwaat di leen siyaaraat bu baax di leen ak di leen baal di ñaan suñu borom bu leen mel na ni ñu ngi ñi ngi jaajëfal suñu kilifa yi suñu ginnaaw Serigne Diop Serigne Mamour Diop xam naa ni jotaay moom seen sant yi rek ko xaw a kéemaanul waaye ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax ci waxtaan wi nga xam ne kawe na njort Serigne Diop nga xam ni moo ubbi jotaay bi tàmbali sëriñ Mamor leeral gi am na solo lool te defe naa ne mbokk yi dégg nañ ko li ci ma doon a jàpp lépp leeral nga ko yàgg nga ko def yàlla gën a yàgg noonu la ñuy jaajëfale sëriñ Mamor Diop mii ak sëriñ Modou Sylla mi mu àndal waaye sëriñ Mamor mi nag dafa yow cant dafa yow cant ndax jëwriñ la ci dëkk bi te jëriñ ji mu fi doon ay mbokki taalibe yoo xam ne dañoo bawoo feneen ñëw fi ngir di liggéey ñoo xam ne liggéeyal sëñ bi war na leen fu ñu mën a nekk ba dajaloo taxawal daayira di bi kem na mu gën a selle di yar ay tutank ay góor ak i jigéen ànd ceeg ñoom suñu sille yi suñ bàcc ak ñeen ko àndal ñëpp loolu yeyoon na ak cant bu baax a baax a baax xam nañ nag sëriñ bi koy defal moo ko gën xam moo ko gën a yëg moom ñaan ma nangu liggéey boobu yëpp waaye tey ji manas na wax ni amon na ngant ndax ñom ña ngay dundal comme niñ koy defé ñang koy defé fa la seen dara ja te mom moy jëriñ ji kon mom amon na ngant waye ni ko waxee rek day tollu fo xamni ne liggéey suñu tawa bu la ci woowee lo xat kon ñi ngi leen di sant bu baaxa baax sama ñaari kilifa yi suñu ginnaw mbolo mi ñi ngi leen di sant ci waxtaan bu am solo bi sëñ Mamoor it yi gat na waye matal na sekk dal na te leer na te lool rek mo ci am solo te it yàlla nañu suñu moroom defal màggalub jàmm suñu mbokki taalibe bi yi fi teew yépp ñu ngi leen di sant sëriñ ma Lay di suñu jëwriñ génte gën koo leral mbooloo mi ndongo yi nga xam ne xëy na wàcce nañu alxuraan ñu yeyoo ay neexal ak yenn yeneen ndongo yi nga xam ne ñàkkul ni dana am ay neexal yu jëm ci ñoom kon dañuy daaneel foofu rek jox sëriñ Modou mu indi leeral yooyu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa waaw salaamaaleykum wa rahmatullah maa leen di nuyu di leen siyaar waaw man la Ousseynou ñu gën ma xamee ci Karbala Couture waaw maa ngi ñaanal euh, xalifa bi sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te wér maa ngi euh, ànd ak daayira Mafatihul Jinaan ñun waa Kaase ñu gën koo xamee ci Karbala Couture ñoo ànd ak yéen ci waajal màgg ذم الجنة أبا سامي الحنان بملكيد من غالى وسارتنا للجل للإبار ما ينبى كتابي وأقلامي ولوهي وكالتالي جسمي لمن ديوان أجرت بسم الله من سلوة العيدا ولي آدم ترمي ولي كرم الجنة Amen. كرم الجنب أبا سامي الحنان بملكيد من غاب really my